te salaamaaleykum chers internet euh, Bambilor Actu di leen nuyu di leen gërëm di leen siyaar di leen màggal bu baax ah. nous sommes ici avec quelqu'un que l'on nomme l'homme que l'on nomme Mediator da ngeen bëgg xam lan moy médiateur, wala kan moy médiateur. suivre leen Bambilor Actu fii lay sur Bambilor Actu médiateur. mu nekk koo xam il a fait ses preuves ici à ah, ci tunu Jandeer def na mieux preuves yoo xam te def hors Bambilor ak après Bambilor mu nekk loo xam te nii xam na ko mën xam nga xam man bés ak ñeneen tu duñu benn Médiateur, xam na bés man na bés min na bés te xam na luy seen ñu koy kontaane bu baax a baax ah juste di wax nga rappeurs su ngeen déggee turu Mediator di ngeen comprendre kan mooy Mediator mais ñun ñi xam te dañuy doog a dégg Mediator bëgg nañ xam lan mooy Mediator ak kan mooy Mediator dama koy bàyyi ak yéen ah mu nuyoog yéen saafonte ak yéen leen ci après tabaski bi Média maa ngi lay ziar bu baax a delloo ziar ma man salaamaaleykum salaamaaleykum voilà Mediator mais juste hmm. pourquoi le nom médiateur, d'où vient nom voilà avant tout je euh, remercier gars Je remercier gars nga euh, euh, hmm. depuis le début Je comprendre. Hmm. aussi sama staff je gars quoi. nom médiateur, c'est simple quoi. vous mu je sama voilà sama voilà koñ grand koñ mon habitude surnommer ku tour quoi. Mhm. man nak dañ ma joxone ben tour médiateur donc ko utiliser. Mhm. ba ma hip hop jël tour bobu quoi maintenir comme sama nom MC quoi. Mhm. c'est juste simple loolu c'est mooy médiateur quoi. donc si je si je comprends bien dafa mel ni que ni médiator bi dafa jógee ci sa ci ci sa temps enfance ci la médiator bi jógee ba légui nga ànd ak mom lang ak mom be médiateur bi am lu mu jur. wa non la fa demee quoi parce que ñun euh, grand dañu amone habitude ku ci nek dañ la jox ben tour quoi parce que loolu soo koñ boo mënta dem fi lool non lay doxee quoi. Mhm. da ngay nek boy jox la ben tour nga koy utiliser. Mediator mhm. lañ ma joxone man comme tour noo xam rek moy sama surnom quoi. Mhm. may dem ma commencé hip hop tour bobu law mané pourquoi pas ma utiliser ko. pas besoin di chercher ay tour yu metti quoi. maintenant utiliser Mediator puisque mom mom la ma ñep xamé quoi. ma utiliser comme sama nom MC quoi. amna solo Mediator yu ba gis nga ne nekk nga ci seen hip hop bi yàgg nga ci ah. depuis quand nga commencé def de la musique hip hop voilà man bu débuté hip hop 2012 le quoi ci groupe laa débuté woon Ben groupe buñ ñu Black Man mhm. man la woon ak sama Ben sister quoi. Mhm. trois la ñu dem ba ci biir ma ma ma arrêté ak ñom mhm. parce que ñom dañu déwon bu ben instant mënatuñu woon continuer quoi ñu arrêté. ma commencé dem man kessé par la suite demaat ba ay côté 2013 2014. bu année bi mo duggee lycée am ñu ma dajal foofu trois gars ñu formé ben crew bu ñaan secteur du jëm quoi ñun quatre. def def def def yëngal Thiès xam nga. jël ay mère révélation Thiès. def ay concert yu bari. dem ba ci biir ma tuxu si fii Bambilor mu am quelques quelques. Euh, euh, comment dire du ma ne sax dañoo tas mais dafa dem ben instant temps bi mayatuñ ko quoi maa ngi fi Bambilor ñii dañoo dem université. par la suite xam nga ma continué ma mujjee jël sama propre yoon.

bu may ñëw fii benn waaye bu ñu naan météo laay laa njëkk a xam fi ci hip hop parce que voilà parce que bi ma wàccee fii damaa njëkk a laajte ndax fii am na studio benn booy laa dajal mu tegtal ma ba gaale météo mhm. moom laa njëkk a xam quoi comme artiste fii di nga shout out ko nuyu de passage quoi mhm. météo line moom laa njëkk xam fii comme rappeur par la dem concert di am mu may invité may rajo di ma yóbbaale mhm. dem ba duggante yeneen gars yi quoi relation yi nice la am am na ay ndëgës yu fi nekk ay yu mën la ñuy def lañ quoi fii ci Bambilor ay relation yi nice la ñu am ak ñoom quoi vraiment lan mooy secret Mediator gis naa ne ci ñu njëkk feesal foyer Bambilor Mediator ci la bokk te puisque mu dogu doog bam ñëw Bambilor juddoo fi yaroo fi mais fessel na fo fa waaye Bambilor la moo nekkoon secret ba nga woté ne gars yi wuyu si la 100 bon affaire pour moi amul secret quoi job kessela mhm. té te tamit lool tamit. dama naan bu dee man kese la du mu ko mën feesal quoi. parce que nit ki mënul dem sans pour am ñu koy accompagner quoi. dafa am ñu nekk sama ginnaaw ñoo def ay liggéey bi yëpp presque ñoom ñoo ko def quoi. bu foyer bi feesee c'est grâce à ñoom xam nga ci man si ñoom la quoi parce que man kese bu doon man kese kese. du mu ko mën feesal quoi sant yàlla affaire moom amul secret quoi. job kese la mën li ngay def xam nga di publier def ay produits yu nice. gars yi ñëw gars yi apprécier quoi vraiment. loolu la sa relation ak artistes yu nekk Bambilor parce que gis naa benn compilation bi gars yi doon woy Lions yi. gis naa ci biir compilation boobu lan mooy seen relation ak ñoom. voilà aussi di nuyu tamit Yeuz ah Yeuz grand bu cool la. voilà Yeewu Lyrics man man man fii laa ko xamee quoi. Mhm. mais jotuma fekkee jamonoom parce que année bu ñuy rap ñoom jamono bu ñuy rap ñëwagu woon Bambilor mais dégg naa seen i jaloore def nañu ay affaire nice si Bambilor quoi Yes Yeewu Lyrics quoi. Mhm. moo tegoon compilation boobu noonu mooy euh, période 2018 je pense. Mhm. Euh, xaw ma moi période mondiale bi quoi. Mhm. coupe d'Afrique Afrique coupe du monde bi. voilà defoon benn son pour Djem ko sargal Lyon yi quoi. moi invité ci artistes new school yi old school yëpp def benn sound. moi ton affaire bu nice affaire bu apprécié apprécier quoi vraiment. est-ce que mën nañ xam lan mooy nekk ay projet médiateur dans l'avenir. waaw pour l'instant instant vraiment euh, concert lañ doon mais ak feebar bi ni moo taxoon ñu mucc ko annuler quoi. Mhm. mais bu wesso concert ñu ngi waaj benn mixtape. Mhm. en mois kii d'avril quoi avril bi di inshallah mhm. ñu ngi koy waaj mixtape la ñuy waaj quoi ak yeneen vidéo yu gëna a quoi. yaa gëna xam. ay ci gaay ñu koy contane bu baax baax ñuy béggee nga xam di météo ñu koy béggee bu baax a baax rappeur la mais dafa daw dem nek chauffeur légui ñu ngi shout out nga xam te ne moo borom yeew léegi ñu koy contane bu baax baax ak groupe yi nga xam ñoo fi nekk ci bam lool yépp ah, média do wax mu ngi leen di kontaan bu baax baax baax média je pense que ni tay jii le 8 am loo xam te ne sénégalais yi ñu doon xool média ñi ko bëggoona di la safoo di la ndamoo di la tiitaroo di la sangoo di la sangoo di la sëlmoo ñi nga xam te ne ñu safoo média bu baax a baax dañ koy ndamoo bu baax a baax am na lu ñu doon xaar ci média tey le huit mu ne la génne lan mu la médiateur gi del gars yi ci le huit bi waaw le huit benn benn benn vidéo bi nga xamante ni ñëpp dañ ko doon xaar quoi mhm. muy ragaluma loolu voilà juste dañ doon wan ni wan gars yi maanaam li yi di def mun nañ ko quoi. Mhm. voilà moo tax ñuy waajal benn sound benn vidéo. Mhm. xaw tuddee ko ma loolu quoi. Mhm. voilà ragaluma loolu. pourquoi clip bi nga tuddee ko ma loolu donc t'as peur de rien du noonu la fa demee noonu la fa parce que am na li nga xamante ne boo ciy dugg tey. Mhm. dañ ciy dem à fond quoi boo ci demee à demi mesure rek doo avancer quoi da ngay da ngay da ngay ñeme. Mhm. ñi nekk sa ginnaaw xam ne kii carrément ñeme ne mën a dem quoi. Mhm. parce que hip hop loolu la ego trip la clash ak thème quoi. booy clash da ngay clash xam ne da ngay clash. bu fekkee da ngay ego da ngay ego booy def thème. nga tem quoi sensibiliser. mais lii typique clash la donc duñ ci am leen lu ciy ragal la ñuy wax lépp quoi. waaw mooy loolu. fan la ñu tourné clip bi nga xam te ne moo di ragaluma loolu. waaw clip bi ñu ko tourné entre fi euh, la Rose. Mhm. ak entre sorti sorti kër ndialo bi non rek station énergie bi quoi di béggee tamit gaay yu trop. parce que mhm. ñooñu yombal tamit lié bi quoi dem nañ waxtaan ak ñom xam nga Ali gérant bi quoi mu yombal ñuko ñu dem def tournage mhm. voilà la Rose ak euh, kër ndialo Lo euh, avant kii entre. kër ndialo Lo lañ ko défé quoi. ñu ñoo nek ci ginnaaw Mediator manam clip bi est-ce que mën nga xam ban promoteur moom mo tourner clip bi voilà clip bi ñuko tourner ay gars yi nga xamante vraiment awma ma fay quoi. Mhm. awma ma seen fay Bambilor Actu. Mhm. ak benn boy bu ñaan naan xam nga moom def li vidéo bi yëpp mom la quoi. Mhm. moko job moko euh ko Bambilor Actu mu kabaro lepp ñom la quoi vraiment awma ma fay ak sama staff aussi voilà. awma ma fay quoi vraiment yee. non man je ne pas comprendre mon kay ni da nga wax la Bambilor Actu. waaw Bambilor Actu day tourner ay clip moom moo tourné sa clip. mo tourner sama clip aussi amna luma faté quoi. avant am gars yi nga xamante ñing ñu ngi fi biir Bambilor. mënoon nañoo def ni seen morom mais defuñu ko quoi. Mhm. dañuy ñëw diis leen suñu problème ñu def ko. Mhm. te ñoom ñu sax ñu wax seen tur quoi mais dañ koy wax. Mhm. kiñ naan Waly Ndaw. xam nga Waly Ndaw voilà. voilà day def affaire yi nga xamante du mës a taay si ñun quoi. du mës a taay si ñun dañ koy def waxtaan suñu problème. mu def mu def ci dara. suba ñu demaat mu defaat ci dara quoi. ak aussi euh, monsieur Sabali. Sabali mu dëkk Gorom 2. xam nga moom aussi def jàpp na ci clip bi quoi vraiment. à part Waly Ndao bi nga tudd sànq ñoo ñoo jàpp ci ginnaaw Mediator ba tey mu mën a màgg xam ràññee ba tourné clip. waaw à part ñooñu sama gars rek ah on my gars yi la sama label waa thérapie musique ñu nekk Thiès. parce que am na ñi nga xamante ne tey euh, man du ma wax sax ñoom ñoo tane Waly tànnewuñu ko ko parce que nit la ñoom tamit ñuy nit quoi. Mhm. mais li muy def tey ñoom mun nañ koo def. Mhm. mais da ngay dem di seen seen problème. Mhm. après duñ ko def quoi mais anyway. mais ñun am nañ waay rek ñu ngi sant yàlla quoi. ak euh, kii comment dirais euh, Sabali. waaw sant yàlla quoi vraiment. clip bi nga wax ci ragaluma loolu. mu mel ni kay nekk benn slogan boo xam te ni jeunesse bi muy footballeur muy kenn keneen ñëpp a ngi wax ragaluma loolu j'ai peur de donc yow nga génne sa benn clip tuddee ko lan moo la poussé à ce que nga tuddee clip bi ragaluma waaw comme ni ma la ko waxee sànq rek bu ci dara moom. Mhm. da ngay da nga ciy wane carrément que lii may def nii. Mhm. ragaluma ko quoi vraiment booy dugg ci dara loolu ngay wane. Mhm. parce que tey boo doo dugg ci terrain tey da ngay dugg ci terrain football sax. ngay wane affaire ragal sa dañ lay génne. mais boo dugg ci terrain am équipe euh, nga boot tey drapeau. di dugg ci équipe waroo faa wane ragal quoi. da nga war a wane carrément que ni. pare naa pour pour joxe lépp quoi pour sama équipe. Mhm. ndax boo ragalee rek gars yi dañ lay génnee mhm. ndax benn slogan bi nga xamante ne du maa ko créé. Mhm. fii lañ ko fekk gars yi di ko taamu wax. ñu ne pourquoi pas jël loolu def ko comme comme titre sound quoi. pas besoin ñuy ñuy chercher affaire yu métti quoi.

da nga bëri wax wax ma foo tooj ba war a wax ñu def loo fi saltel jàppal di nga bale ndeyam yeah das media on the mic maa ngi nii di toog di impro jàkkaarloog benn caméra rap laay teg ndéges kaa ñu teg maa ngi nii nii laay tegee nii xoolal rhymes yi fii gaa yëpp wër ma man la média ku ma ci jàpp dama lay damate what the fuck ni mu lay defee ni benn tamaate rap laay teg what the fuck yor benn mouchoir indi benn door what the dama lay dugal ci benn couloir man la média faalewu ma ngaaka blende dama lay dóor what the fuck ba nga day dee what the fuck xoolal ni may bondee man la nen wala man la kekk what the damay rab nu ma neexee médiator da lay dóor di la cokotaan ci pokotaan what the fuck man du ma sànq jànk du lekk ñànk tàng what the fuck rab lay teg indil sa baaram cinq rab ba baaram fenk indi beneen flow saa su nekk ni lay demee rab ba mel ni demee xoolal médiator dafa demee yëkkatil say demee rab la ñuy teg fii ba demee du ñu mës a noppi bu méttee sax dañuy soppaliku lay door kaay fàttaliku fii lay xewee Bambilor Actu du mës a xewee feneen média toole da door ba ngay xëy ñeneen rab laay teg di la jonkan what the fuck dëggas demal wuti leneen man la média tool from under my gang therapy music

ay clip avant mixtape mixtape bi mom moy li nga xamante moy dernière chose quoi. mom moy mom moy mom moy instant dernière dernière affaire bi ñuy bu ñuy tejé xama projet bi quoi mais ay vidéo la ñuy def incha allah nañ def 3 à quatre vidéos. avant avant ki bi quoi avant projet mixtape bi. te bi te ci biir mixtape bi aussi dina am yeneen vidéo yu gëna dope ya par rapport au coronavirus bi raw en tant que rapport nan ngeen doon dundé bon di respecter mesures yi hein, parce que feebar la bi nga xamante tay tey yegg seen biir Sénégal. xam nga comme ni ko gars yi di dundee rek noonu noonu lañ ko doon dundee fii quoi mhm. respecté fii comico moom ne day wàlle ñëpp xam nañu nu muy moo la ciy génnee mhm. voilà noonu ko doon dundee comme ni ko gars yi di dundee quoi respecté ay mesures yi rek parce que feebar ba léegi jógeegu mhm. xam nga malgré sax gars yi ñu naan am na amul politique la am di politique mais l' la ñu jël suñu matukaay rek toog respecté li gars yi wax quoi pour mën cee génn waaw ci gars loolu la waxa ah, message bi nga xam te ne médiateur moo ko lancé muy que ci coronavirus bi na gars toog seen kër rester chez li nga xam ne mooy les mesures barrières gëm li nga xam moom la wax ki gëm li ci am mooy que fagaru moo gën faju te dina matte ak du boo ci bëggee xam dara da ngay sa loxo médiateur loolu dañ koy kontaan bu baax a baax média la moo nekk sa mot de la fin ak ñen ngay gërëm waaw di gërëm gars yëpp ah, di sama gars mhm. di gërëm a ag moom mooy job affiche yëpp moo koy job quoi di bëggee bafu sound yëpp moo koy job aussi ak sirubit mhm. instrument yi moo koy job di la bëggee yow mii nii quoi mhm. di bëggee le grand Wali Ndaw euh, Sabali mhm. ak gars yëpp yi nga xamante ni maanaam euh, peut-être fàtte naa quoi waaw fàtte naa di gërëm gaa yëpp waa koñ bi xam voilà waa koñ yëpp di leen béggee xale yi paa yëpp yëpp yëpp mhm. fàttewuma kenn quoi di gërëm waa Bambilor mhm. ak ci mhm. koo gis danaan du moom na a effet bu bëri bi koy a moo nekkoon médiateur ñu koy bégg bu baax a baax moom mu génnee clip tuddee ko ragaluma loolu fan la bu nga ni mooy lien nga xam ne gars yi fan la jàpp am clip bi ok pour pour euh, am vidéo bi boo boo demee YouTube da nga def Mediator nga benn O def 2 def M quoi. Mhm. voilà boo tapé rek di nga gis sama chaîne YouTube quoi. Mhm. aussi di shout di bëggee aussi bu bëgguma wax turam mais benn kilifa la quoi. Mhm. kilifa bu mag na moom am na solo kon kilifa yi ñu ngi lay siyaar baax a baax ah a di gërëm ñi xam mooy waa Bambilor Actu di gërëm Mediator ak staff am ñëpp ngi leen di baax a baax bu sànnee clip ba pare bu leen clip bi naayisee bu ngeen ko apprécier jotee da ngeen dem surtout waa Bambilor Actu dem xooli Kals booy bu ndaw bi ah loolu la médiateur wax waaye booy bu ndaw moo màgg suba gars yi jaa ngeen jëf merci beaucoup Bambilor Actu lay xewee médiateur jaa jëf gars peace and love. ragaluma loolu say all yaa loolu jëm all yaa ndeg ragaluma loolu.